programme économique financier bu bees bu toll ci mille cent cinquante milliards ci suñu ay koppar loole nag mooy déggoo bi nga xam ne nguuru Sénégal am na ko ak ñii di waa Fonds monétaire international kii di ministre bi nag di leeral diir gi. dañu am programme bu bees boo xam ne dina def ñetti at juin bii lay tàmbali jeex juin programme bi nag ñeel ñeenti pàcc yépp rek jëm ci wàllum li ñuy gën a dooleele koom-koomu réew mi. axe bu njëkk bi mooy affaire finance publique. publique moom am na ay tegtal yi ci joxe xool ñu ñuy gën a améliorer gestion finance publique. teg na ci aussi gouvernance financière ak transparence nee aussi économie Sénégal mu gën a résiliente pàcc bu mujj bi nag mooy affaire environnement dañ ko ci yokk. kii di ministre bi di xamle ne programme bi baax na lool ndax nguuru senegal dinañ ci jële ay koppar yu bari programme bu bees boobu nag nga xam ne conclure nañ ko FMI ak gouvernement du Sénégal ci xayma xaalis bu ñu xoolee programme bi am na xaalis bu tolloog mille cinquante milliards de francs CFA ci biir ñetti at. gën a dëgëral institution yi ci mel ni nag fexe ba nguuru Sénégal di respecter charte yu mu signé ca bitim réew wàññi inégalité sociale yi gën a dundal koom-koomu réew mi yooyu nag ñooy jeexital programme bile nga xam ne nguuru Sénégal yàkkamti nañ lool ñu doxal ko.